waaw c'est c'est un problème soxna Aïcha benn c'est un très problème très profond euh, c'est vrai que l'honorable a mis l'accent sur la famille mais la famille balaa ñuy jiite mooy état mooy teg les structures nécessaires mooy l'encadrement nécessaire parce que nit ki dem na jàngi am éducation mënul am emploi mhm. ñu bëri tey génn nañu université amuñu ay diplôme boo demee ci gaal gi ñu ngi ci tey ci douze yi gaañu am na ñoo xam ne sax su ko sim lañ doon liggéeyee donc ñoom ñoo ko cotisé seen bopp seen xaalis pour mun a fay pour dem gaal. donc c' est c' li nga wax la un moment pression sociale beeg lépp mooy dem ba mu tegu seen kaw ba ñu jël ay décision ñii dañuy jël gaal mais ñii tamit am nañu pression mais amuñu fit boobu dañu dem ci ambassade di déposer ay visa x fois vingt fois trente mais amuñu fitu jël gaal. mais di nga gis ñoo xam ne ambassades yi boo fa demee c'est mais le problème est profond parce que jusqu'à présent de tous les régimes qui sont passés ils n'ont pas eu le courage d'aller au fond c'est-à-dire les réformes de l'éducation système éducation bi nga xam ne tey joxetul liggéey ñi ñi nga mën a ni ñu war a am liggéey aujourd'hui pa bi moo na ko nee na ba 21 ans 21 ans dootoo xale tu es un adulte tey aujourd'hui le bac war nañ fexe ba suñu dëkk yi je le dis partout le bac xale yi amee ko à 15 ans mënatoo am ay outils yu mel nii am xam loo xam ne tey war na la mën a permettre nga accélérer say connaissance accélérer say sa am sa bac yow nga koy amee dix-sept dix-huit ans di commencer fonctionnel à vingt et un vingt-deux alors que dans les autres pays les gens ont les leur bac très à seize ans mais ils commencent à être professionnels à dix-huit ans vingt ans ils entrent dans le métier pourquoi on attend jusqu'à vingt-cinq ans nga nekk adulte majeur nga war a mën a kii mais aujourd'hui aussi le financement bi ñu war a def mooy sur la formation professionnelle de masse xale yi di dem université yi boo ci investir sur mille cent yi cent yi rek a ci génne loo xam ni fonctionnel ñi ci des ñëpp dañu duggaat ci beneen système de réforme wala ñu dem commencé waat métier wala donc donc le problème est un problème de courage pour ñu war a mën a xool ne suñu éducation bi tey mënuñu yóbbu ay élèves ñuy jàngi ay Madame de Bovary mënuñu yóbbu ay élèves ñuy dem di jàngi ay la Russie de mille neuf cent mënuñu ñun le de le le le vrai problème mm-hmm. xool leen ko bu ñuy dëggu école ba ba egg on ne fait que parcariser mais yow parkeriser boobu boo génnee nan ngay amee nan ngay amee métier de base boo génnee léegi métiers yi ñuy jël lan la ay banque ay assurance ay des métiers yoo xam ne foo génn nit ñi ñu ngi déposé te amuñu donc l'État doit prendre le courage de dire à partir de 2024 nous avons pour objectif sur les quinze premières naa années xale yi am bac à quinze ans ñi ci bëri ñu orienté leen ci ay série scientifique et technique. Ouais. C'est vrai, l'État a fait une cartographie sur universitaire. Ils, ont créé les UVS, ils ont créé des centres de formation professionnelle. On le reconnaît, mais ça suffit pas. Le courage boo demee en Allemagne par exemple nga jël Corée du Sud nga jël dëkk yu mag yi c'est la formation professionnelle qui absorbe la plus grande partie des métiers. Juste en Allemagne il y a 300 métiers répertoriés professionnellement répertoriés parce que foofu ñoom loolu mooy seen ba euh, premier ñi di immigré bu ñu demee lan lañu njëkk def du du métier lañu def. Mm-hmm. métier professionnel la ñuy def. du dem di jàngi di réciter ils vont aller faire de la mécanique ou ils vont faire d' autres choses mais aujourd'hui dans le fond du du débat il faut que xale yi ñuy génne ñu par rapport à notre économie ak fi ñu jëm. il faut xale yi ñu jox leen ay métiers li mu wax aussi c'est sur la question de la pêche ça a beaucoup affecté Kayar mës naa fa dem di def benn étude étude bi mën naa ko génneewaat mais dañuy dem ba foofu ñu ne ñu même équipe nawetaan amatul parce que xale yi jël nañu gaal yi mais ça c'était c'était extrêmement grave kenn nettali wu ma ko je suis allé de base mais les accords de pêche yi am ba nga xam ne tey quinze millions d'euros sur cinq ans mooy trois millions mais alors que les Européens gagnent cent quatre-vingt-quinze milliards de francs fa parce que la tonne de, de bi ñu jël ci ñun wala les jën bi ñu jël ci ñun bu ñu ko jaayee ils ont mais pêcheurs bu ñu amatul jën bu ñu amatul fu ñu jëm lan lañuy def dañu jël gaal yi dem dem topp jën bi fu mu nekk mooy dëkk yi donc aujourd'hui il faut que l'État arrête ces accords de pêche là c'était un mauvais accord on l'a dénoncé man ba ma nekk à l'Union européenne euh, à l'Assemblée dem naa Allemagne dénoncé ko leen lii ngeen di def nii mais c'est même pas logique ba pare GIZ tourné waat ne la da jox dix millions d'euros pour dimbali xale yi ñu toog sa kër na ñu toog sa dëkk ça n'a pas de sens aujourd'hui c'est la responsabilité du départ en premier mhm. de mettre en politique une en place une politique d'éducation vraiment avec des réformes profondes pour que les jeunes aient des formations professionnelles yi nga xam ne dina leen man métier et ça c'est important maintenant aujourd'hui aussi mais parents yi day am ay limites parce que boo xoolee parents yi nga xam ne tey ñi seen doom yi di jël gaal yi ils ont des limites certaines tu ne peux pas être dans une couche vulnérable être dans une situation de vulnérabilité ba pare nga xool sa doom mu nekk ci situation boo xam ne désespoir bi nga nekk moom doo ñaan mukk yàlla mu nekk ci désespoir am na ñoo xam ne sax ñooy jaay seen bien jox seen doom yi ne leen fay leen ngeen jëli gaal yi donc parce que li nga wax la soit da ngay nga am désespoir ku xas ba xam ne fi ngay jëm mën nga dee nga ne non damay dem am na ñoo xam ne dem nañu ñu jàppalaat indiwaat lañ ñu delluwaat. Mm-hmm. ça veut dire une question y' une situation la désespoir. Alors,